jërëjëf démb dem nañ euh, terminus Liberté 5 fekkee convoi yi nga xam ne ñoo waroon a yóbbu waa Thiès ak waa Diourbel euh, tey dellu nañ fa pour xool yeneen ñetti région yi nga xam ne ñoom ñoo waroon ñoo waroon a dem waaw léegi nag ñun li ñu jàngat ci loolu d'abord bala ñuy ñëw ci convoi bi mooy président de la république bi mu nee day delluwaat euh, yóbbu élèves yi ak jàngalekat yi ci daara yi ñun leen jàpp mooy dafa waroon a jël matuwaay yépp mais li ñu constaté démb mooy ak cuune ak ay tappale ak ay tëñëx tëñëx yi boo xam ne moo fa am ba tax na jàngalekat yi démb ñoom ñëpp seen xol jeex na ñun ñii di seen i njiitit suñu xol jeex na démb ndaxte dañoo jël jàngalekat yi dajale leen ci dajale boo xam ne dañu koy tere ci jamono ji ñu ci réew mi te ñoom ñoo ko doon tere beneen bi mooy ñoom bi ñu yegsee xamuñu sax ban bis mooy dem bii boor ak bee mooy dem bee boor leneen lañ ci constaté tamit bañ demee ba nga xam da leen a yóbbu ci guddi gi ñun nelawuñu parce que bi ñu leen yóbboo par exemple ñi doon dem Thiès ba ñu rombee bi ñu demee ba Thiès dañ leen wàccee Thiès bi ñu neen wàccee Thiès am na ñoo xam dañoo war a da juróom-ñetti kilomètres ñii dem fukk ñii fanweer ñii ñeen fukki kilomètres pour dem ca dëkk ba ñuy jàngale ci heure boo xam commencé woon na guddi parce que bi ñuy départ euh, démb dafa guddee ña ña leen gën a metti la nag mooy waa Mbour ñoom ba ñu yeggee Mbour ñu wàcce leen ca préfecture Mbour ba amuñu kenn mënta dem fenn même bu ñu dajalee seen xaalis dem loué ji oto oto bi danaan leen man aw ma permission mënu maa dem donc muy jafe-jafe yu métti ba jàngalekat yi am na ñoo xam ci mbedd mi lañ faral xam nga loolu non loolu yabaate la cest à dañu yab quoi c'est-à-dire que président Macky Sall ak nguuram dañu dañu wegul jàngalekat yi parce que ñoom yàgg na ci ñoom nag parce que président Macky Sall bi muy nekk premier ministre la na waxoon ni ñun ay terroriste lañ ñun jàngalekat mu nekkee président la république grève nañ fi mu ci ay commissariat di yóbbu jàngalekat ci commissariat di leen bunduxataal pour ñu joxe seen i notes fekk booba grève lañ nekkoon moom président Macky Sall nag tey lii mu def nii loolu la ci dolli waaye nag bettuñu ndaxte ba mu demee ba jël ministre bu cuune bu toll ni Mamadou Talla xool ñu ñun ba yàpp ñu ba ñuy jox ma Mamadou Talla muy nekk sunu ministre lool la ñu wane ni jàngalekat yi euh, président Macky Sall tegu leen fa mu leen war a teg parce que Mamadou talaa bi mu ñëwee léegi ci cuune la nekk moom dafa nekkoon France yore ay association moodu moodoom ay mantelage gelée yooyu donc moom président Macky Sall gañe nguur gi woo ko mu ñëw mu jox ko njàng mi waaye wax dëgg yàlla booy wër cuune dama ma Mamadou Talla feesul chaise bi mu toog ñun dem ñun jàngalekat yi fieruñ ci am ministre bu mel noonu waaw am nañ gàcce ci ni muy doxale njàng mi vraiment na daal tayit la fa xew ba ma fa jógee euh, fa laa jógee nii la fa xew même euh, même chose c'est-à-dire que jàngalekat yi ñu ngi leen dajale teg leen ci naaj bi ñu takk seen i masque nekk ci ay coono yu métti loolu vraiment ñun bokk na ci lu ñu gën a métti dégg déggoo li ma la wax amul benn matuwaay bu ñu jël dañoo ñëw rek toog maanaam ngay gis euh, ñi wër Mamadou Talla talaak moom euh, ku nekk toog koo laaj mun la xaw ma ah, defe nga ni kooku ministre bu am njariñ la ah, ba noppi moom bi ñu jëlee décision beeg léegi muy ay ay ay ay au moins ñaari semaine ñetti semaine mu amoon temps bu doy pour def li mu war a def mais def ko ñëw ba ci bis bi te gis nga pëccaxoo gi la deux a bari jàngalekat yu bari duñ dem parce que jàngalekat yu bari tey rek bi ma fa de bi ma delloo ñi waroon a dem démb ñu bari tey lan ñëw daal ñëw ñu leen bis dem nañ démb donc jàngalekat yi ñu leen dajale ci yoon te am na ci école yoo xam ne bu jàngalekat yi demul du fonctionner parce que dañuy dem école yoo xam ne si benn jàngalekat rek bu fa manqué du fonctionner parce que par exemple benn prof bu manqué ci région yi rek école boobu du fonctionner donc jafe-jafe yi daal bëri na bëri boo xam ne ñun jàpp nañ ne lu le deux bi mais nag comme ci parax parax la ko président de la république jël aussi moom lu ne ci xel mi rek lay def ak li mu ko dicté parce que moom décision yi nekkul ci loxoom moom président Macky Sall lépp lu muy def da ciy laaj France président Macron moo koy wax defal mu def. mu ne ko def non nekkuñ ci république sunu république bii du république Sénégal ab village la rek ci France maanaam France mooy décider buñ nee ko defal mu def. bu ñu ko nee bàyyil mu bàyyi moom président Macky Sall yorul décision yi ci loxoom loolu moo tax décision yi muy jël ci parax parax la koy jël donc loolu moo tax lii bettuñu. lii nga xam ne moo am ci njàng meeg njàng ñun parce que président Macky Sall loolu rek a def. mais déggoo li ma la wax élèves yi demaguñ fi mu doon yi élèves yi leen ëpp. ministre Mamadou Talla chiffre bi ñu joxee ni ay euh, fukki junneeg juróom-ñeent euh, ja jàngale fukki junneeg juróom-ñeent jàngalekat ñoo nekk dakaar mais loolu amu ci lu ko leer moom Mamadou Talla xamul sax ñaata jàngalekat ñoo nekk ci système éducatif xamu ko loolu mooy loolu mooy njombe li fi mu toll nii ba bay wax ñaataa nekk dakaar fan la jëlee chiffre yi ku ko jox yan statistique IA yeeg IEF yi nga xam ne amuñu sax numéro jàngalekat yi élèves yi nag mooy njombeli parce que élèves yu bari numéro yan joxe woon ca école bañ doon jànge avant ñuy bër ñoom ñëpp ñu daw dem Dakar ñi dem Ndar dem seeni i mbokk presque àll bi soo fa demee élèves yëpp dem nañ vacances parce que feet yi daa guddoon waaw léegi moom président moom ministre moomu talaa naan élèves yi xam fu ñu nekk moom jàngalekat sax daa xam ñu nekk bay xam élèves yi fu te élèves yi numéro téléphone yan joxe ca fiis yan doon inscrire ci ko jaar ci élève da nga ne élèves yi duñ ca def sax seen numéro yaay ak seen numéro papa parce que dañuy bëgg wut ku ne ci koñ bi wala benn waay boo xam mooy dem jëli seen bulletin donc bu ñu wootee ca numéro boobu dañ naan leen ñun ko xamuñu ko xam nga looloo tax ma lay wax ne ñii xamuñu njàng mi c'est-à-dire Mamadou Talla moom xamu dara et moom comme ni ma ko tuddee rek moom daal ndoon di bu ñu daakaande la moom xamul lu xew quoi moom lu ko waay wax rek tooñ ko moom li muy wax yëpp dëppoowul ak li nga xam ne moo am ci école yi